ci ay mbir yoo xamante ne dafa nekk al asiya al waqiya mbir yoo xamante ne dañ koy dund ci suñu biir wala ñu koy dund ci suñuy kër tey nag ñu fas yéene waxtaane ci njabar ak la ca nekk ak lan la ci alquraan wax ak lan la ci sunnatu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama wax njabar nag mbokk yi lu am la te yonent bi wasalam moo ñu ko saxalal ci ay tex yu wóor jox ñu ay kaaraange yu ñu mën a aaree suñu bopp ba def-def du agsi ci ñun mooy liggéey du agsi ci ñun doomu aadama nag lu mu dund ba noppi bu la ko nettalee nga war koo gëm yonent bi sallallahu alayhi wa yaakaar naa lu waaye gàtt alu gàtt alluwa yëg nga ne njabaroon nañ ko te bañ ko njabareet jàppoon nañ ko kon njabar moom baaxewul kenn nit ak àggut ci wilaaya ba dee su ko mën a njabar nit ak gut ci bëri pexe wala mu am kaaraange wala mu mën a jaam yàlla ba dee su ko njabar njabar nag bëri nay façon am na lu ñu tuddee asixrul makul mooy njabar gu ñuy lekk am na njabar gu ñuy naan am na njabar goo xam dañ koy def ci albaxuraat dañ koy def taal ko nit ki noyyi ko léeg-léeg bu njëkkaan buur yi buñ daan nopp ab dëkk walla ñu bëgg jabar ab dëkk ngir ñu topp leen tawaan wa kërhan daanañ yabal kenn ci seeni dàkk mu dajale am mbalit ba mu bari def ko ay niit fekk njabar gu ñu taal lañ ca nar a def waaye nag bu ñu ko defee nit ñi dañ ko xam ñu defar ab séb bu ci digg dëkk bi wala ca gannaaw dëkk ba wala xool foo xam ne ngelaw dana fa jëm ñu def cee njabar ga taal ko saxaar soosee képp ku ko nooyi rek boo ko saraxandikoo rek yow moom danga bëgg buur da nga topp buur tawaan wa kër xan mu neex la mu naqari la kon am na njabar gu ñu def ci cuuraay di ko taal am na njabar goo xamante ne ci njabar yi waral nit ki di am xeet gu naqari la doomu aadama dina dem ba am xeet gu naqari mel ne kuy xeeñ ay dem àll fekk ne njabar gu mu noyyi lañ ko def mu jàpp ko solo ko def ko ngelaw ñu naan la ngelawu seytaane la fekk ne da ngaa noyyi njabar gu ñu taal ba war na waral nit ki sax dem bay génne xeet wala bu bu bu waxee sax gémmiñam di génnee xeet wala mu dem ba fu mu toll sax day ngelawal maanaam day foroxal fu mu toll yooyu yëpp xeetu njabar dana ko def. am na lu ñu tuddee asixrul madfun mooy njabar yi ñuy suul njabar nag dees na ko suul ci ay armeel am na ñoo xamante ne dañ koy def ngir fay coow am na lu ñuy bind ci ay talaasim sixriya nga xam ne da ngaa def njombe wu rëy wala nga war a dem tribunal wala nga war a tëdd kaso am na gaay yoo xam ne dañ koy liggéey def ko ci bopp bëy wala ñu def ko ci loo xamante ni daal luy dund la taw bëri coow bu ko defee ñu daa dem ba ci bàmmeel bu bees suul ko ca la koy waral tegtal ba leen cay am ca wàllu njabar mooy bu néew bi jógaatul coow fi lay yem maanaam ku mënul yëkkatiwaat néew bi mu jóg wax mënoo yëkkatiwaat coow li wala sax ku dëgër bopp ba coow li fa néew ba dem da fa dem léegi-léegi nag wàllu miraas la ko waral te xam nga ñun métier bi ñu liggéey ku nekk day ñëw ci ñun léegi-léegi koo xam ne dañ ko papaam day nelaw ñu di ko miraas ñu war a jaay kër gi am kenn ci ñaa xamante ne mooy yilif kër ga moom mooy def loolu waa kër ga ba kër gi kenn du wax ci ku wax sax tudd ci jëm ca boo muytul di nga faatu mbaa nga feebar ngir lan ngir bëgg gu mu aakimoo aakimoo kër ga la li waral njabarante lépp nag alquran jàngal nañu ko mooy doomu aadama yàlla da ko bindee mu bëgg àddina bëgg xaalis bëgg ay kër bëgg suuf bëgg jigéen ju rafet bëgg wurus bëgg or nee na doomu aadama yàlla da ko dañ koo taaralal yooyu mu bëgg ko mooy waral léeg-léeg muy fiir bëgg ko aakimoo moom dongu lekk ko ma tax muy njabar ay nit ba kat alal ji sama baay bàyyi kenn du ci wax wala kat danaa def loo xam ne ku ci nar a wax feebar wala ku ci nar a wax topp sa njëx maanaam ñu naawta la nga dem moo tax alquran wax ne zuyyina linnaasi xubbu sahawaati min annisaai walbaniina والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والقيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن حسن المآب maa ngi jégalu foofu sax ci léeg boo téye micro di wax al alquraan yi mën nga cee juum wala nga def ixtibaas kon ndongo daara yi ñuy teewlu ñu bàyyi ñu xel loolu ci ne njuumte bu amee rek ñu xam ne noonu la demee kon al alxuraan fas la woo xamante ne daa kenn mënu koo war ba ba doo daanu ndax yonent bi sallam ne kenn ku nekk day juum waaye nag ki juum te nangu njuumteem kooku jéggalees na ko kullu ibnu aadama xata wa xayrul xataa'ina at-tawwaabuuna kon njabar googu am na mooy njabar gu ñuy suul ci bàmmeel am na njabar goo xam ne dañ koy suul ci séeli bi yoon nga xamante ne léeg-léeg danañ ko def jigéen ju nekk jànq ñu dëj ko liggéey ko loo xam ne dañ koy def ci sële bi yoon sële bi yoon bu ko waxee mooy genre croisement wala ab rond rek nga xam ne noonu oto yi di rombe rond bi duñ ko laal noonu la ko góor ñi rombe ba mu xëy lamb rek am juróom fukki at wala am juróom-benn fukki at. du mas a dégg alxayri ku ngoro ba ñëw rek dem wala ku wax moom ba ñëw rek wan ko ginnaaw day dem noonu ñuy rombe rond-point rek noonu lañ la rombe di dem am na lu ñu a tuddee asexrul euh, muallaq njabar goo xam ne des koy wékk soit njabar gi ñu wékk ko fii janaaxi tayrin naawtal ko mu dem loolu bu njëkk mag ñi dañ ko daan liggéey ci génne nit dëkk bu saay-saay nekkee ci dëkk bi di nangu jabari jàmbur yi wala dee nga maam di tëddee xale yi wala di leen yàkkataan wala mu nekk ci dëkk bi te jukkoom neexu leen bu yàggee mën na mën na yàq waa dëkk ba am na lu ñu cay liggéey ci sama tur woowu mooy yaa mooy jalaal di ahamu saqaku xalaxu yesu am na ñu koy juutal nag juutal ba lañ koy liggéeyee xane buñ ko bindee def ko ci laafu picc yi dañuy téye picc seen loxo di liggéey tur wa di ko liggéey di génn dëkk ba fu tur jeexe jeexee rek fu lim ba jeexee rek ñu sànni pëcc ma mu naaw loolu boo ko defee doomu aadama moo xam bu doon ci marché la nekk sax dañ koy naatal gis nga fi ñu bëree bëri xëy suba jaari bàyyi seen place tëj ko rek dem am nañu xëy suba bàyyi seen njaboot rek ñu naawtal leen ñu dem am na ñu xëy suba bàyyi seen barabu liggéeykaay ñu naawtal leen ñu dem am na ñoo xam ne dañu xëy suba tukki di liggéey nekk seen i mbokk fa ñu liggéey liggéey bi dox ba mu yàgg ñu xëy suba rek ñu naawtal leen ñu jóge dëkk boobu dem ci beneen dëkk kenn mënatul xam dara ba dañuy xëy suba fekk leen ñu faatu mbaa oto fiir leen mbaa ñu dëkk ñoom kese ñu dee ci benn néeg kenn du xam lu leen rey kon jabar gu ñu wékk am na am na jabar goo xamee dañ koy wékk ci garab gi wékk ko ci caru garab dégg nga fi xusni sajaratin nga xamante ne heure bu garab gi yëngatoo rek doomu aadama yi dootul mën a tey toog maanaam tey nit ki fi ne dana nekk ci barabu liggéeykaay toog fa di liggéey waaye gi ñu ko def heure bu liggéey ba muy dina xëy suba def loo xam ne ko jëlee ci barabu liggéeykaay ba wala sax doomu aadama bi toog ba ci am na ñoo gis si mbedd yi ñuy wër di taxawaalu rek di sànni seen i loxo fekk ne ñaara leen koy waral dañu def njabar goo xamante ne dañ ko def ci sagaru nit ku nitoo di ko maanaam ab dof wala ñu def ko ci garab nga xamante ne heure bu garab gi yëngatoo rek dootuñu toogati moo tax am na ñoo xam ne du ñu toog dañuy yendu di wax rek di wër ci naaju di wax di wax di wax di wax di wax fekkee ne dañ leen koo dañ def kon yooyu ay xeeti njabar la yoo xamante ni baaxul dafay yàq doomu aadama am na yu ñuy def fii suq bi sajaratin aw suur def ko ci bën bënu garab mooy lëm def ko ci bën bënu garab foo bën bënu toq garabu toq yi fi ñuy kii euh, garabu kàdd wala geneen garab moo xam béer la wala lu mën doon bën bën yooyu di am ci garab muy lëm soit toq def ko fa wala seko def ko fa wala ngor kàdd def ko fa wala xeetu picc yooyu nga jël njabar ga suux ko ca tay ko kooku ay mbiram foofu lay jaaree di nax am na sax léegi comme mooy am na ba miir am na maçon yi miir yi ñu bënn foofu gars yi dañ fay roof dara buñ paree daal di ko cay euh, daal di ko fay dugal am na ñu koy def di ko boole xeetu ay xottu gerteeg yu demee naka noonu ngir nëxal dund doomu aadama bi moo tax doomu aadama tamit nag war naa moytandiku di def ku mu gis rek tooñ la ndax xam-xam bu yàq doomu aadama dafa yomb kon nañuy moytandiku baax am na yoo xam ne dañ koy def ci ci yére dégg nga boobu nag bokku na ci gën a garaaw nga am yëre doomu aadama bi wala nga am karawam moo xam dafa watoon karawam karaw boppam bàyyi ko fenn moo tax mag ñi laan dañu daan moytandiku loo ndeysaan naan la boo watee boo watoo ba noppi sa karaw gas ko nga suul ko nga boole ko yàq ak këriñ ngir teg ne la bañ boo ko bu ko picc na tàggee da ngay dof fekk jubluwuñ ci picc tàgg ko nga dof waaye lañ ca jublu mooy nit mën na koo for njabar la ca wala mu njabar ca leneen loola indi la méttitu bopp am na ñoo xam ne seen méttitu bopp yëpp ci seen karaw gu naaw lañ ko jëlee euh, fa tabarakala te am na rabi àll yoo xam ne bu ñu xasee ba jël sa karaw bopp dootoo tàggalikook bopp yu métti dootoo tàggalikook tawat wala mën na laa sol ngelaw wala sax jinne mën na caa mën na koo jël def ca yeneen kon yooyu lu mat a moytandiku la boo watoo ba noppi moo xam sa karaw yu bopp la moo xam sa weeyu loxo nga dagg moo xam karaw poqutaan la moo xam karaw sikkim bu mu ci mën doon ut jël ko nga def ko foo xam ne na lool mën a am accès wala mu fay àgg ndax yooyu buñ la ci njabaree du baax la nga summi say dàll sànni ko fii ne dàll wuñ for bari na ñu koy jël liggéey ca doomu aadama ndax liggéey bi gën a gaaw ci doomu aadama ci dëddale gaa yi ci dàll lañ koy def boo jëndee ñaari dàll carax wala nga for ñaari dàll yu bokkul mooy ndeyjoor ak càmmooñ boo ca defee am na xaatib yoo xam ne boo ko ci daggee wala yéen talsam sihriya yoo xam ne boo ko ci daggee boo ko baxuree koy yeb oto rek jox ko benn waay mu sànni bii dëkk ba sànni bii maatam sànni bi nuñ ko waxeeti sànni bi ndakaaru bu ko defee waa ji ni ndakaaru ak maatam sore rek noonu la seen diggante di sore ñoom ñaar dañuy xam dëddale gu dox seen diggante moo tax bul sànni say dàll mukk ñoo xam ne sax may leen ay dàll wóoratul kon yooyu dañ ko bàyyi xel kon dëddale dinañ ko def ci ay dàll daal di defar ko bii ci dëkk bi bii ñu yóbbu ko ci beneen dëkk na ñaari dëkk yi sore yéen ñaar noonu di sore bu ngeen jegee daal bu ngeen soree daal am jàmm waaye bu ngeen jegee dootu leen am jàmm kon bëri na yoo xam ne dañ ko jël am na xam ne dañ koy def ci yetu gumba dañuy fekk gumba guy kii rek ñu fëkk yar wa wala ñu neexal ko daal nangu nangu daal di nangu wa def ko ca wala ñu def ko ci yére boo xam ne ni ku yaram ni yaramam neexut la yooyu yëpp dañ ciy jabar doomu aadama ngir yàqal ko am na ñoo xam ne sax njabar la gu ñuy def ci bëy dañ ko def ci bëy wala ñu def ko ci jarax xam nga bëy dafa bokk ci rabu àll yi nga xamante ne bëyu góor foo ko fekk rek mooy siket foo ko fekk ci bëyu yu jigéen yi rek day bëgg di tëbu fu mu toll da ngay yooyu lay faral di def bu ko defee nag am na xeetu njabar yoo xam ne bu bëyu góor bi yëgee ci bëyu jigéen ba wàcc moom la gaa yi jàpp rek noonu sàkkara bi tooyee wala bu bu jigéen bi buñ ko ci def moo xam góor la wala jigéen am na loo xam ne buñ ko ci defee yow ku jigéen ki foo toll da bëgg di sëy doo taamu sa borom kër doo taamu keneen même sax mën ngaa baax lool am boroom kër ba noppi di jaay sa bopp te yow soxla woo xaalis waaye da dem ba sa sër oyof góor gu la jekku rek fa tabaarakallaahu da ngay mel ni mentalaatu ku jël rek daal di jëfandikoo sëñ Mamadou bu ko defee yooyu yëpp xeetu njabar la yoo xam ne gars yi dañ koy def tabaarakallaahu yooyu nag yu mat a bàyyi xel la boo gisee ñu koy wax ngir bëgg nit ñi bàyyi ci xel ndax araab yi dañuy wax ne al wiqaayatu afdalu wa xayrun min al ilaaji yaa xam tubaab yi li wax mieux vaut prévenir que que guérir kon fagaru moo gën faju kon yooyu ay xeet la ci xeeti njabar yoo xam ne noté woon naa ko njabar nag alquranul karim moo ñu ko saxalal ci texte yu wér suñu borom ne am na ca jamono yonentu yàlla Suleymaan ay jinne yoo xam ne daanañ déey wala ñuy jàngal lenn ci doomu aadama yi di leen ko yenkeewal ci ay gént wala ci demee noonu di leen jàngal naka la ñuy njabare ngir tàggale nit ak nit tàggale jëkkër ak jabar tàggale frère ak frère tàggale yaay ak doom tàggale baay ak doom tàggale patron ak ki nga xamante ne mooy employé moo da alquran ne ñu baada aoudu billahi min ashaitan rajim bismillahi rahmani rahim wattabaau ma tatlu sayatinu ala mulki sulaymana wa ma kafara sulaymanu walakinna sayatina kafaru يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما mu ne ñu leen di xamal maa yufarriquuna loo xam ne dañ ciy dëddale bayna al mar'i diggante nit ki wa zawjihi ak borom këram wa waaye nag ñoom ñooñu wa ma hum bi daarrina bihi min ahadin illa bi waaye nag munuñ cee lor kenn lu dul yàlla da caa ànd ndax assihru xaqun wa lahu tasiru lakin bi ma qaddarahu alqadiru assihru xaqun wa lahu tasiru ba demee ca maarijul qabul ba sulamul wusul ca saraba loolu la borom wax nee na njabar dëgg la am na wér na waaye nag kenn mënu laa dal lu dul yàlla daf ca ànd kon yow mi mu daal it jàppane xëy na yàlla suñu borom moo ca ànd waaye nag mën nga aar sa bopp bala maa àggale aaya bi yàlla suñu borom ko fonk doomu aadama la gis nga boo fonkee julli fonk zikkar yi yonent bi jàngale zikkar yi danañ leen ci ñëwal fonk zikkar yi yonent bi jàngale gannaaw julli suba gannaaw julli tàkkusaan gannaaw julli timis gannaaw julli gée booy dugg ci duus nga xam li ngay wax booy lekk nga wax bismillahi rahmaani rahim booy sol sa yére nga xam li ngay wax booy tëdd sa soxna nga xam li ngay wax boo watoo nga xam li ngay defee booy sangu nga xam fi ngay taxawee waaye ñu bëri ci ñun tey bu ñuy sangu dañuy yaakaarloo si seen saal demee dégg nga baba sa njàmpe xam fi nga koy jenci yére yi ngay jiital say caleçon bu dee jigéen la silib nga xam fi nga koy jenci booy dugg ci marché nga xam li ngay wax booy dugg sa oto noonu ka saalika naka noonu boo toogee ci jataay bay jóg nga xam ñaan gi ngay wax nga fonk askar yi fonk tudd yàlla fonk julli boo ko defee nit mën na laa njabar waaye pour mu jàppale dana jafe lool ndax sa yaram dafay miine wu dafay am sécurité bu wóor ndax doomu aadama bu dee faral di zikkër di tudd yàlla di faral di fonk waxtu julli juróom yàlla da koy booleeg ay malaaka yoo xamante ne wa koy watt fu ñu toll ba lu nit ki bëgg a def ci moom du ñu am accès ci moom kon doomu aadama ku war a fonk julli la ku war fonk santaane yàlla yi la waaye nag li la alxuraan sant boo ci jaarul rek pour nit ki mën a dën nëxal sa dund mën a yàq sa dund mën a indi jafe sa dund dafay mën a am accès ci yow te daf koy yomb loolu nag alxuraan moo ñu ko jàngal wa man yaasu an zikri rahmaani ku fi bàyyi ku dëddu ku won ginnaaw li nga xamante ne yàlla suñu borom santaane ko ci téere bi nu qayyid lahu shaytaanan fa huwa lahu qarin qarinun seytaan dana ànd ak yow lënkalikoog yow la di la yàqal di nëxal sa dund seytaan nag ñaar la sayaatinul insi ak sayaatinul jinni am na ñoo xam ne bu yoor yooree ñu muuroo seen kol am na ñoo xamante ne bu yoor yooree ñu taal seen oto jël tali bu weex bi dégg nga wala ñu jël tali bu xonq bi dugg ci àll bi ngir yàq doomu aadama ñoo ñëpp nag ki muuroo kol wala màggatu yoor yoor bi wala jeeg bi muuru kor wala xale bu góor wala waxaa kum ci doon ko yàlla mën na laa musal ci ayu loola cat ak njabar ak nag ak tooke lu mat a moytandiku la nitu yàlla yëpp dañ ko doon moytandiku yonent ko ñaan boo demee ci xasida googu ñuy wax sindiidi nga xamante ne xasida gu baax la Sëriñ Tuubaa radiyallaahu moo ko bind ma nga cay musul ne yàlla musal ci cat musal ma ci làmmiñ musal ma ci tooke musal ma ci njabar moo tax aaya boobu ñu bëree bëri ci ñun mbokk ñun ñun muridi bu ñu bind dara dañ ko cay boole wa kun muidan lana min sarri si xasadin maa sarri famin wa sarri l ayni salawaati summi yàlla te alquran boo ko dee jàng fonk julli fonk zikkar lu bëree bëri te macha allah nga nga wala nga jël alxuraan boo xam ne lu leer la moo xam da nga koo takk wala nga koy sangoo yàlla dafay doxale benn miir sa digganteeg ak ñi yàq ida qara'ta alqur'ana ja'alna baynaka wa bayna alladina laa yu'minuna bil axirati xijaaban masuuran yàlla ne ne boo dee jàng alxuraan wala ngay dund alxuraan damay doxale sa digganteeg way def katu lu bon yeeg def katu lu ñaaw yi benn miir ba mën nañoo def pexe bu ne waaye duñu agsi ci yow moo tax ca aay bi mu doon jàng sànq mu ne euh, ñoom dañuy jàngal doomu aadama yi maa yu farriquna bihi baynal mar'i wa ji waaye nag munuñ caa lor kenn te yàlla àndu ca dégg nga bu baax kon lu mata moytandiku la gis nga njabar ga doon am ci yonentu yàlla yu jamono yonentu yàlla Moussa ak Aïcha euh, ak euh, ak ki nga xam ne moo di Firawna ak ya ca xew lépp ba dañu wax ne Iblis sax bu xëyee suba dafay yabal ay xe doomam ñuy wër ci àddina bi ngir yàq ku ñëw rek yàq goo yàq lu mu gën a garaaw rek lay jël taf ci boppam li ko gën a neex nag mooy ko tàggale ab say kon njabar lu ama am solo la bokk na ci aayaat di nga xamante ne da ciy musal doomu aadama boo ko dee jëfandikoo yàlla mën na laa musal ci njabar mooy gannaaw fatihatul kitaab nga bindulu aaya bi ma jàngoon sànq te mu nekk ci suratul baqara mooy wattabau ma tatulu sayatinu ala mulki sulaymana wa ma kafara sulaymanu walakin alsayatina kafaru yuallimuna annasa alsihra wa ma unzila ala almalakayni bi baabila haaruta wa maaruta ba aaya ba jeex nga daat ci teg aaya bi muy bëgg a wax moom it qaala muusa ataquluuna lilxaqi lamma jaakum asixrun hada wala yuflixu saaxiru xaysu ata damaat bindaat beneen aaya bi fa lama alqaw qaala muusa maa jitum bihi sixru inna allaha sa yubtiluhu inna allaha laa yuslihu amala almufsidina wa yuxiqu llahu alxaqa bi kalimatihi walaw kariha almujrimun beneen aaya bi tamit nga bind ko fa awjaza fi nafsihi xiifatan muusa qulna laa taqaf innaka anta al ala wa alqi ma fi yaminika talaqaf ma sana'u innama sana'u kaydu saaxirin walaa yuflixu saaxiru xaysu ata ba pare nga bindaat aaya bi wa awxaynaa ila muusa an alqi acdaaka fa ida hiya تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبتل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانغلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون nga bind ko moom it ba pare nga bind qul a'uuzu bi rabbil falaq ak qul a'uuzu bi rabbin naas ak qul a'uuzu bi rabbin naas ak ixlaas ak ayatul kursi yu bu ci ne nga bind ko wala nga jàng ko juróom-ñaari yoon juróom-ñaari yoon ëf ko ci ndox boole ko ak xobi si dem di ca naan di ca loolu bokk na ci yi nga xamante tojal njabar ak njabar gum ci mën a doon njabar nag bëri na ay siiñ yu muy def ci doomu aadama bi boo demee ba yëg ko gaawal nga jóg ci sa bopp te nga xamante ne yow yaa ngi ci yaa ngi ci musiba